suñuy mbokk internet ñu ñëw ak yéen ci ay xibaar yu yees gendarmerie nationale teg nañu loxo Samba Boy ya dajji woon complexe agro touristique bu nekk fële sa diwaanu Daaru Ndooy meew naan ñoom nag jotoon nañ faa yóbbu xaalis bu takkoo takku ba jotoon fa fàtt bakkan ñu dikkat ak yéen rekk ci mbiru na Baldé moom nag yoon atte na ko ba daal di ko tëj 6 mois ak sursis maanaam juróom benn weer ak si mom nak tribunal ba ko dan information yi nag ñu ko jëlee ci ci biir assemblée nationale ginnaaw bi ñu affaire Seydina Fall alias Bougazali wa division des investigations criminelles teg nañu loxo ñaari député yu bok ci ben trafic de faux passeport diplomatique ginnaw bi ñu wa division des investigations criminelles tegee loxo ci ben réseau si lañu xam ne ci réseau bobé am na député yu et domaine inspecteur modal de di jënd benn ndaamaar lu par li millions de francs CFA waaw ndamar lolé mu ngay jar 80 millions francs CFA benn DG manam directeur général bu impôt et domaine modal de di jënd Ndamar du philosophe sénégalais bu mag bi nga xamné ken kenn ko présenté ci biir réew Bachir Diagne. moom nag jot na prix bu ñuy woowee le prix Saint-Simon 2021 ginnaaw bu mu bindee ab livre am boobu mu tuddee le fardeau de la mémoire. politique bi di wuyoo ci turu Babacar Diop moom nag ay kàddoom la ñuy gis ci biir Walf Quotidien moom mu ngi wax ci coalition bi di Yewwi Askan Wi nee na ginnaaw parti yi di Pastef Taxawu Sénégal ak PUR yeneen parti yi nekk ci biir coalition boobee yépp ay parti yu ndaw lañ te coalition boobu dina leen permettre ñu daal di leen xam ñu am yenn popularité yooyu la police daal di teg loxo ñoom nag yemuñ ci seen métier boobu di yi dañ cee boole leneen lu ci bokk bokkul maanaam dañuy jaay drogue ñoom nag ginnaaw bi leen yoon tegee loxo dañoo bañ boole ki nga xam ne mooy seen fournisseur nee nañ duñu wax turam te duñu wax tamit fan la féetee ci biir. fanweeru commerçant moom lañ yoon teg loxo ginnaaw bu ay contrôleur demee ci seen boutique di saytu ndax ñoom ñu ngi respecté mesure yi nga xam ne ministre de du commerce teg na ko lu jëmook njëg yu wàññeeku yi ñoom nag gis nañ ne bañ defee ab contrôle kenn respecté wu ci mesure yooyee ci noonee la leen yoon dal di tegee loxo ab daan nag dina dala seen lu ñuy saytu mooy 767 yi nga xam ne gouvernement bi génn yónnee woon nañ ko ngir xeex inondation yi njiitu réew mi Macky Sall nee na dina def li ñuy woowee audit ngir mën a xam fu 767 milliards yi yu yees li ñu am ci mbiru Alexia Kanté moom nag yoon daal dina ko daan un mois ferme maanaam benn weer ku lolo di avokayambi di maître Abdul Daf ginnaaw bi loolu amee jëkkëram bi di wuyoo ci turu Ismaïla Kanté moom AVC Manam, accident vasculaire cérébral Abdoulaye de di professeur arabe bi ñu aéroport Blaise Dias ci mbiru terrorisme moom nag daal ni nañ ko àtte démb ci àtte googee nag journal bi di Libération mu ñuy xamal que ne dina jeexalee ay fanam ca biir kaso ba suñuy mbokk internet li lañ leen indiloon di leen jaajëfal. bërëb bi ma doon wër far naa ko gis samay place bi may jaay ay matériel informatique yu ànd ak qualité dëgër loolu te ànd ak garantie ak suñu computer nekk ci diwaanu Sicap Liberté 5 rue Sans Soleil képp ku fa dugg ak bépp matériel informatique boo mën ci bëgg da ko fi am moo xam ay ordinateur portable wala ay ordinateur de bureau te li gën a nekk ci suñu computer mooy boo fi duggee façon iPhone boo mën ci bëgg da koy am ak suñu computer yemuñ ci jaay la rek ay matériel informatique waaye dañuy réparer bépp machine boo mën ci yor moo xam ay ordinateur portable ay ordinateur de bureau ay téléphone portable ba ci ay iPhone képp ku ci am jafé jafé ci sa matériel informatique daw sil gaaw ñëw ci suñu computer dinañ la défal réparation bi du yàgg te soxol fay sét guy kon nag sama gaay, yi gaaw leen gaaw contacter suñu computer. Fi dal bu fi duggee bépp matériel informatique boo mënti bëgg di ko am façon ordinateur boo mënti bëgg ak marque boo mënti doon ba ci tablette téléphone portable ak façon iPhone boo mënti bëgg bu duggee ci suñu computer di ko am adresse am nekk ci Sicap Liberté 5 rue saint Soleil numéro téléphone am 77 418 26 90 wala 33 864 36 89 ak suñu computer so bëggee jënd qualité ñëwal fi ñay qualité dong moo leen tax a jóg jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi gul abonnel ngeen commenté like suñuy vidéo